Mamadou Mbodj Diouf ñu ngi lay nuyu. mais merci lay fay. Euh, di la dalal tey jii euh, yow nga doon euh, membre ci bureau politique bu parti socialiste tamit yor projet donc d'appui à la modernisation des daara muy PAMOD tey ñu waxtaanee njëkkee ci politique bi tey gis nañ coow gi ci nekk gannaaw nag ba ñu déggee Serigne ci am mu wax ne wala sax mu yëkkati débat jëm ci secrétariat wala renouvellement lii di. ci euh, instance su parti socialiste tey ji ndax euh, waxtaan bi euh, jotoon nañu wax ko. heureusement que rectifié nga du coow waxtaan la rek te waxtaanu jàmm la politique moom ak wax ñoo ànd. Mhm. te foog naa ne li Serigne Mbaye Thiam wax aayul xëy na dégg bi dégg déggin bi moo des wala peut-être ñi jottali wala ñi ci wax. nañ ko waxee wala nañ ko jottalee moo dul demeewul noonu. Mhm. may fàttali ne rek suñu camarade Serigne Mbaye Thiam dañ ko invité ci benn émission. Mhm. mu waroon dem pour wax waxu inondation. comme responsable politique la c'est normal que journaliste bi interpellé ko. Mhm. ne loo xala li xel noo gisee sa parti. est-ce que am ngay ambition. mu ne la bon man comme responsable politique la naturellement mënu ma ñàkk am ambition sinon ma bàyyi politique. te su fekkee ne maintenant par rapport ak échéance jëm nga moo tax ngay wax ak Euh, comme secrétaire général Ousmane Tanor Dieng nekkatu fi. Mhm. kan mooy jiite parti bi. parce que dañu war dem congrès en tout cas am na ay camarades yoo xamante ne jàpp nañ ne te dañuy ñëw di ma gis di ma ko wax. Mhm. war naa mën a yor parti bi suñ ca yeggee su fekkee ne ñoom laaj nañ ma ko ñaan nañ ma ko mais du ma daw sumay responsabilité dinaa leen assumer pleinement. Mhm. loolu la wax leneen lii mu ne congrès bi dafa waroon tenir depuis deux mille dix huit ñu prolongé ko prolongé instance instance yëpp Aminata Mbengue Ndiaye. bi secrétaire général Ousmane Tanor Dieng yal na ko yàlla yërëm dëddoo àdduna moo ko remplacé. Mhm. mais boobook léegi def na fukki weer ak juróom xëy na euh, waroon nañ toog observer le deuil. Mhm. maanaam euh, voilà dëj ko pare nañ ci daf débi yoon ñu recommencé waat euh, disons processus de renouvellement yi. Mhm. may xamale ne rek waxu intérim boobu su ko Serigne Mbaye Thiam yëkkati. nekkul ne poste Aminata Mbengue Ndiaye boobu moo tax muy wax il faut que ñu comprendre que ne en deux minutes dañu waroon dem congrès mhm. dem ñu ñu prolonger euh, disons mandat yi li tax Aminata Mbengue Ndiaye remplacer Ousmane Tanor Dieng parce que dafa dëddu àdduna di assurer intérim mhm. mais ñun am nañ cent trente huit coordination quatorze union régionale ban lim ci ay section ci comité mhm. macha allah mais ñaata secrétaire généraux de coordination wala de comité wala de section ñoo dëddu àdduna 2014 ba léegi ñaata ñoo bàyyi ñaata ñoo màgget ñaata ñoo dem donc ñooñu ñëpp ni i yi ñoo leen remplacer di doxal parti mais ñooñu soxla nañu am légitimité pour mën a dogal doxal en tant que secrétaire général excalité moom bokkul leneen lu dul loolu loolu junj donc ci kaw loolu mu ne militant yi. Mm-hmm. ku ci nekk yaa ngi déglu yaa ngi xaar. que renouvellement yi nga xamante ne Ousmane Tanor Dieng euh, tàmbale woon na ko ndax hmm. lancé woon na vente des cartes yi ba li ci ëpp pratiquement coordination yi jaayoon nañ seen carte hmm. renouvellement yi démarré woon nañ ba moom joxe woon na top départ yi am na sax coordination yoo xam ne jox nañ renouvelé ba pare seen instance hmm. mais bi mu dëddoo àdduna ñu waroon a toog xaar dëy bi ñu demee na ba teg ci fukki weer ak juróom te parti bi xëy na sax euh, nam waroon di yëngoo xaw na des mais moo tax ñu ne nañu yëngalaat parti bi reprendre ak renouvellement yi. fexe mhm. gars yi pare ñu mën a convoquer congrès bi pal euh, secrétaire général bu def instance yooyu nga xam ne am na ñu ci xam ne seen i secrétaire général dañu dëddu àdduna wala mhm. dañu bàyyi wala dañu magee mhm. mais ñu mën leen a remplacer. su boobaa mais parti bi mën a dundaat ci village yi ci quartier yi ci communes yi. ci régions yi ci département yi. je pense que wax ji foofu la te foofu lañ ko war a bàyyi waruñu ko yóbbu feneen. Serigne Mbaye Thiam ak Aminata Mbengue Ndiaye jotewuñ dara amuñu benn xaar ma yàlla ñoom ñaar ak ñeneen ñi dañu bokk ŋànkandoor euh, direction parti am responsabilité doxal ko. Mhm. donc gisuma ban saafaan moo war a mën a tax loolu war a antu. waaye nag wax li nga xam ne moom moo war a nekk li nga xam ne mooy yoon man je pense loolu mënul doon euh, waxu saafaan mënul doon aussi tooñ. Mhm. du doon attaque du doon provocation nañu jàpp ne rek dédi loo xam dafa waroon commencé taxawoon. mais mu ne na reprendre at pour leneen. il faut que nit ñi déggee ko noonu xam ne leneen lu ñu wa commentaire beneen buñ ci def mooy yàqkat yi nga xam ne dañuy mbubboo euh, deru deru bëy pour jaxase pour diviser ci seen i intérêt personnel intéret bopp. monsieur Diouf monsieur Diouf dégg-dégg dafa wute ku xam Serigne Mbaye Thiam xam ne lu mu bëggul tontu du ci tontu tey ñu laaj ko ci mu tontu ci est-ce que du da bëggoon natt boppam euh, su ko defee mu xool coow li nan lay def. mais mais mais yow un responsable d'une dimension bu am dayoowu Serigne Mbaye Thiam. Mhm. dem ci plateau télé. Sénégal yëpp ci ko seetaan. Mhm. ñu xam ne euh, am na bokk na ci parti am na ñu koy yaakaar. Mhm. mais su toogee ñu interpellé ko ci question yooyu ma bam ma tuddoon sànq. Mhm. muy intérim rek ay ambition personnelle am. mais loolu su ci àdduwul dañ naan dafa daw res dañ naan dafa daw responsabilité am. Mhm. au contraire sax Sénégal dañ ko war a jëppi respecter Sénégalais yi mooy nga indi une réponse claire. Mhm. par rapport ak loolu. mais réponse boobu ni mu ko waxee man je pense que ñu ko interpréter comme une déclaration de candidature loolu yegg buñ fa seriñ Mbaye Thiam xam na. kañ ak fan ak naka la ñuy déclarer candidature euh, pour pour pour secrétaire général. Mhm. moom mooy le responsable euh, secrétaire national aux élections 2007 ba léegi. ça fait plus de trente treize ans kooku duñ ko jàngal ni parti bi di mais nañ ko laaje noonu la tontoo te ba muy tontu sax defane yégu euh, yeggaguñ ca waaye am na ay militants yuy ñëw di ma seet ne ma namoon nañ nga jiite parti mais xëy na du moom rek. mais moom boppam la xam nan ko waxee noonu mooy firndeel le fait que mhm. un responsable politique bu am envergure bu mu am c' tout à fait normal que moom ay ambition sinon dafa war a bàyyi politique looluy loolu aussi lu neex a dégg la est-ce que li mu wane position bi nii euh, lu tax ñu bëri faagaagal ko ndax dégg nañ jëf au sein du parti socialiste même euh, ay nit yu jóg wax ne duñ ko yombal liggéey boobu mais bon ku nekk da ngay intention rek mais ñun PS xamante nañ suñu biir ku nekk xam na kan mooy kan te Serigne Mbaye Thiam du como ci biir parti bi su doon como fa mu toog du ko du fa toog su doon como euh, fa ko Ousmane Tanor Dieng tegoon confiance bi mu amoon ci moom kóolute bi mu amoon ci moom mu mën ko teg ci gouvernement bi pendant sept ans ñu dem élection présidentielle mu reconduiraat ko xam nga ne kooku naw na ko naw na cëram naw na ay responsabilité naw na aussi ay compétence mais mën sa liggéey ak am am ginnaaw euh, dafa wute euh, monsieur Diouf. non mais Serigne Mbaye Thiam secrétaire général de coordination la te parti socialiste soo jiitee ab coordination ku yëkkati loxo ne dama bëgg a jiite parti bi am nga sañ-sañu loxo ne dama bëgg a jiite parti bi. Mhm. loolu rek lañ soxla soo amee coordination. te ñëpp xam nañ PS yëpp xam nañ ne union régionale PS de Kaolack Serigne Mbaye Thiam moom moo fa nekk moo koy doxal moo ko yor. fi ñu toll nii ci wàllum renouvellement yi. Mhm. mais li mu jaay ci ay carte mais ñoo bëggoon a mën a lim ñaata responsable régional ñoom ñoo jaay li ñu toll su booba di nga dégg coow jibee fañ ko foogewuloon kon foog naa ne ce problème de base ak am na base amul base yooyu ay caaxaan la ñi koy wax dañ koy wax pour nasaxal xelu sénégalais yi parce que mënuñu tromper militants yi militants yi xam nañ ngi xew. Mhm. xam nañ ngi xew ci parti bi ça c'est un faux débat. te ñi koy alimenté mooy ñi nga xamante dañu bëgg a jaxasee parti bi encore une fois man dama ne Serigne Mbaye Thiam c'est un responsable Aminata Mbengue Ndiaye c'est un responsable divergence mënu fa am xëccoo mënu fa am ku ci nekk da nga am say cër am sa parcours suñu waree dem na ba ca congrès parce que ñun nag bëgg nañ congrès bi quand même Aminata Mbengue Ndiaye bi nga xam ñun moom nañ dénk suñu mandat ndax mhm. mu remplacer Ousmane Tanor Dieng dañu ñaan ci moom di xaar ci moom booster renouvellement yi. Mhm. mën a fixer une date pour congrès bi su boobaa képp koo xamante ne namm na euh, doon candidat pour jiite parti bi. Mhm. et su boobaa militants yi décidé su dee Serigne Mbaye Thiam tant ya su dee keneen ñu xam ne noonu la. Mhm. choix militants yi te couche militants yi choisir pour tere ñeneen ñi def ci biir parti bi. continue di ci ñun loolu lañ wax waxuñu leneen amul lan lan lañ ciy ragal pourquoi ñuy bañ ni ñi wax waxu congrès. pourquoi yi bañ nit ñi tudd tudd ambition na ku nekk liggéey sa base na ku nekk liggéey fa nga war a liggéey. su ñu demee ba ca capandong ba. Uh-huh. militants yi ñooy jugé te dañuy jugé en âme et conscience ku ci nekk. par rapport ak yaakaar bi nga am. Ah, ah. ci tel responsable wala mm-hmm. ambition yooyu la sax euh, ay euh, local ñu ngi koy waajal waaye it euh, présidentielle deux mille vingt quatre tey jii parti socialiste ñu gis ne ba tey moo ngi bootu ci ginnaaw coalition Benno Bokk Yaakaar ndax mën nañoo xalaat ne ëllëgam dina changé non wax jooju foog ma dàqu. Hmm. parti socialiste bootuwul derrière. coalition Benno Bokk Yaakaar. Hmm. parti socialiste dafa bokk ci biir coalition benn Bokk Yaakaar. d'accord c'est un membre du invité du participant. Hmm. may fàttali ne en 2012. bi ñu demee premier tour ñun amoon nañ suñu coalition Benno Siggil Sénégal Benno ak Sa Nord. Macky am tekkal ngor. Hmm. Macky gagné fekk am na accord yu ñu defoon ne fu ëpp ëpp candidat opposition bi gën a placé wu. na ko ñeneen ñëpp jàppale. yàlla def ne Macky Sall moo jiitu. Mhm. dem war a jàmmaarloog Ablaye wat mais ñun ñu toogaat dañu woote toog danañu ut une coalition boo xam ne ñëpp a ciy bokk Macky ba yoroon dekkal ngor indi dekkal ngoram bàyyi ko Moustapha Niass indi Benno Siggil Sénégalam bàyyi ko mhm. Ousmane Tanor Dieng indi Benno Tanoram bàyyi ko mhm. ñu boole lépp mu doon benn muy Benno Bokk Yaakaar kon boobu mënuñu ne dañu cee boot mais dañ ci bokk coalition nag dañu nekk ci jamonoy coalition Ousmane Tanor Dieng yàgg na di ko wax amul dëkk booy dem réew booy dem si àdduna bi te ña ko jiite fekkoo fa ay parti yu dajaloo ci coalition pour yor ko pour ŋànk réew mi noonu la àdduna bi di doxee àdduna day dox benn parti tundum gàñeetul élection ñun ci logique boobu lañ nekk comme ca lañ nekk nag euh, macha allah am nañu responsabilité ci gouvernement bi te duñu ceeg gàccaay mais ñun dañu gëm ne rôle ba ñu waroon a joué du ma ne ci coalition mais pour ci état bi ci république ñoo ngi koy joué pleinement mhm. li nga xam ne aussi moom la ñu yi doon xaar ñoo nga fa parce que ñoom ñoo ñu fal en tant que coalition en 2012 ñun ñu porté la candidature de Macky Sall en 2019. d'accord ñu falaat ko donc euh, plusieurs coalition bi moom moo fi nekkat macha allah ñu ngi ci biir kon gisuma lan lu ñuy lu ñuy regretté. Mm-hmm. leneen li mooy wàllum élection présidentielle 2024. Macky Sall bañ ko faleeg léegi sa fait moins d'un an et demi. Mhm. motul at ak genn wàll. d'accord te ñun Macky avant même affaire di ko investir parti socialiste ñoo ko dëkk investir biir maison du parti dañu porter candidature am jàppale wuñ ko soutenir ko. Mhm. dañ ko investir. Mhm. parce que su fekkoon ne soutien dañu am candidat ba pare xëy na mu dem ñàkk ñu ne léegi acca demal jàppale ko loolooy soutien mais ñun dañ ko woo ne ñun amuñu candidat yow yaay suñu candidat. nga ñëw maison du parti ñu investir la Sénégal yëpp di seetaan. Mhm. mais kooku suñu ñëwee un an et ñu bëgg a commencé naan waaw waxu candidat waxu présidentiel mais kooku ce n'est même pas élégant rafetul ci biir wala boog su boobaa mën nañ jàpp ne xëy na ñun lañ doon woote gëmuñu ko ñàkk fexee taxoon ñun ñu investir Macky Sall. d'accord te ñun du ñu def lu ñu gëmul. loolu lañu ñu namoon yàlla jàpp nañu ñu investir ko yàlla def mu gagné. kon boog fi mu toll nii ñun dañu am yeneen priorité. Mhm. lu dul euh, lu lu lu lu lu weesu lu nekkul ci ay affaire élection présidentielle deux mille vingt quatre dama la ne. Mhm. parti social fi mu toll nii dafa war a redéfinir ses orientations. pour loolu mu mën ko def foog ñu dem congrès fal secrétaire général bu bees. Mhm. mu mën a am mu mën a am des prérogatives yu mu assumer pleinement mën a am un pouvoir décisionnel bu koy permettre mu ne fii la PS jëm pour deux mille vingt quatre pour deux mille trente cinq ak fene ak ak la ca gannaaw donc loolu dafa war a leer ci xelu nit ñi parti socialiste bootuwul parti socialiste am na beneen priorité mooy jeexal renouvellement uh-huh. organiser congrès uh-huh. su ko defee ba pare ba fal secrétaire général bu bees su boobaa mën nañu waxu présidence. Euh, ñu jeexaleeg li nga xam ne moom mooy euh, lii di daara yi nga doon directeur PAMOD euh, tey jii njiitu réew mi muy ci ñaax ay waxtaan waaye it ñu boole ci ñi nga xam ne ñooy association maître coranique yi ngir nag ñu jël en compte lii di seeni i bëgg-bëgg tey nan nga jàngate wala sax nan nga apprécier boobu les recommandations bu njiitu réew mi. waaw bon li ma mën a wax foofu rek président de la république euh, li mu wax euh, recommandation bu forte la te du pense que xëy na peut-être li tax loolu dellu soit moo di euh, coow li xawoon na am tuuti ci retrait wu Euh, enfants yi de la rue mooy ndaw ñi nekkoon ndaw ñi ñuy ministère de la protection de l'enfance. Mm-hmm. xale yi ñuy jëlee ci ci ci ci ci ci ci mbedd mi. mbedd mi pour yóbbu leen ci centre yeeg yooyu. Mm-hmm. am na ñoo xamante ne xëy na génnoon nañ pour ñaanlu loolu. peut-être looloo waral mu defaat recommandation mais may wane ne rek. Mm-hmm. foog naa ne lépp loo xamante ne dafay jëm ci daara. Euh, te aussi muy recommandation wu président de la république. mooy nañu waxtaan nañu yaatal. nañu ubbeeku. Mhm. képp koo xamante ne acteur la nañ ko boole. képp koo xamante ne acteur la nañ ko sóoraale impliqué ko ci action yi nga xam dañ koy def. Mhm. donc foog naa ne loolu ñun en tout cas pour euh, euh, pour pour pour pour ministère éducation nationale parce que euh, li jëm ci retrait des enfants de la rue loolu direction protection de l'enfance la ak ministère de la femme. Mhm. mais ñun éducation li ñuy saytu mooy wàllum njàng bi ci biir daara yi. te ci kaw loolu foog naa ne projet yeeg programme yi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu modernisation des daara. Mhm. ñoo ngi euh, liggéey liggéey bu mucc ayib. ah parce que soo jëlee projet de modernisation des daara ñett man moom laa jiite war nañ tabax juróom-benn euh, fukki daara ak ñeent fi mu toll nii presque mën nañ ne euh, fanweer yeeg ñett yi yooyu pare nañ. Mhm. ba équipement yi. ci ëpp sax équipé nañ leen ba pare. Mhm. am nañ am nañ volonté en tout cas namm nañ vraiment rentrée bi ñu ubbi yenn ci daara yooyu. d'accord te loolu aussi le ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla namm. Mhm. wax na ko te vraiment euh, moom ci euh, euh, en tout cas taxaw na ci bu baax a baax. Mhm. ñun aussi comprendre nañu. Euh, sué boobu nga xam ne ministre de le ministre de l' nationale namm na ko. Mhm. et ñoo incha allah ñoo ngi préparé pour que ouverture boobu mën a sorti donc mën naa ne daal nañu jàpp ne euh, acteurs u daara yi. Mhm. ñoo ngi waxtaan loolu la président de la république santaane loolu la le ministre de l' nationale santaane. Mhm. Euh, macha allah ñoo ngi ci dynamique boobu te yaakaar nañ ne incha allah recommandation présidentielle boobu dina permettre quand même. ñu gën a pacifier l' espace scolaire mais aussi ñu gën a mën a en tout cas sànq lépp loo xamante ne dina doon jafe-jafe ci wàllum ñàkk déggoo mhm. ci biir acteurs yooyu. d' accord monsieur Mamadou Mbodj euh, Diouf merci beaucoup. merci beaucoup.